tey jii donc euh, dañu ñëwoon Touba euh, jël si ay oto yoo xam ni waa Touba ca kanam euh, ñoo ñu ko doon jox waaye balaa loolu damay sant Serigne taxa Mbacké xalif général de murit di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ko wér di nuyu di gërëm Mohamed Ali Ndiaye bi nga xam ne nii moo nekk itali moo permettre tey oto yi fexe ba agsi fii Touba ca kanam ñoo ngi leen di nuyu par le biais de seriñ abi Mbacké waaye itam di nuyu waa mairie yi nga xam ni alors ñoom ñoo tax coopération bi mën a réaliser wu ba mën a agsi fii euh, oto yi tomb toll na ci ñetti ñetti oto ndox ak benn ambulance boo xam ne day ñëw fekk si euh, renforcer parc bi nga xam ni moo nekk Touba te état liggéey ci liggéey bu am solo dinañ ci dellusiwaat li ma bëgg wax rek mooy. Euh, geste bi ñu def geste bu noble la geste patriote la ndax kenn ku nekk boo jàppee ni yaay état rek waroo mën a xaar dara ci état ñoom nag loolu la ñu doxalee xaaruñu dara ci état gis nañ ne mën nañ développer Touba gis nañ ne Touba mu ngi yokku dayo Touba benn caserne sapeur pompier doyatu fi ñoom ñu am vision boobu xaar ñu kenn jóg def seen i démarche ba am seen i auto sapeur pompier ànd kook waa mairie ànd kook waa Touba ca kanam fexe ba oto yi ñëw ñu jébbal ko sapeur pompier mu war a renforcer dispositif bi nekk fii donc loolu du dunu lu dul cant goo xam ne ñoo ngi leen koy wax da leen ko jagleel di ko wax ci turu général Seck bi nga xam ni mooy yilif sapeur pompier yëpp di ko wax it ci turu ministre de l'intérieur bi nga xam ne mooy sunu kilifa euh, oto yi nag li may wax rek dafa ñëw fekk si état mu def lu am solo ci sapeur ndax jël na lu toll ni vingt cinq milliards def ko ay jumtuwaay jox ko sapeur pompier mooy oto yu bees yi ngeen gis nga xam ne bu ci ne presque jar na trois cent millions kon lii ñoom dafa mel ni dañoo feelu état deuxième programme bi état teg presque soixante sept milliards la boo xam ne toujours ci sapeur pompier la jëm tabax ay caserne renforcer équipement sapeur pompier kon nag loolu su ñu ñëwee mu tombeek lii du ñu def lu dul sant leen te gërëm leen. oto yi boo leen ko gisee mooy oto am na ci premier secours premier secours am na ci fourgon premier secours moom euh, capacité ndoxam bariwul li tax parce que day def ndox day fay lakk day sauver dafa am antenne médicale di fay lakk donc polyvalent la fourgon nag moom mooy fay lakk yi mooy les véhicules de grande capacité donc ñoom ñooy ñëw fay lakk bi. am nañ ci ñett ak benn ambulance kon loolu day mel ni du lu tuuti lu rëy la en tout cas ci ñun amal nañu solo ndax dina yokk suñu capacité opérationnelle dina nu permettre bu nu amee jéye ju bëri comme bi meloon ni marché ocas du jar ñuy woo waa jur bel pour ñu ñëw renforcer nu li ma wax sànq rek nee naa leen camp bi ku xool Touba ni muy màggee te dëkk buy màgg day risques yi dañuy gën a bëri loolu moo waral benn caserne biir doyatul ngir Touba loolu depuis deux ans ñu ngi koy wax d'accord jàpp nañ ne waa Touba ca kanam dégg nañ état bi dégg na bu ñu lëkkaloowee yàlla mën na def ñu am yeneen caserne dafa jot fen ñu am Touba minimum ñetti caserne yoo xam ne dina mën a wër ndomba dëkk bi ba fu jëyee am ci simili yu néew oto yi mën a egsi régler ko mu féete boor loolu daal mooy doléance bi nga xam ni ah sañu moo ko tuddee doléance ñaan laa koy tudde rek ah, ndax lépp rek ah, sauver askan bi moo koy mooy mooy moo ko sabab